ba ñëw fii mooy eh, yàgg nañ ci marché bi di fi liggéeyee ñu ngi njëkkoon a nekk ci mbedd bële fa lañ njëkkoon a nekk bi ñu fa jógee mooy bi nga nekk moo bi nga xam ne moo def en face marché bi foofu lañ njëkkoon a nekk bi ñu jógee ñu ñëwaat fi nga xam ne mooy réseau bi foofu tamit ñu joxaat ñu ko bi ñu ko joxaatee bi ñuy defal kanaal yi ci lañ ñu fa déplacé indiwaat ñu fii fii tamit ah, bi ñu ko joxee ñu dagg ko ay place ñu ko daggee ay place ku ci nekk ñu daggal la 4 mètres 4 mètres yi mooy li nga xamante ne bii moom la ñu fi daggal léegi nag ñun li ñuy xam ne moo ñu xaw a moo xaw a doy waar ci ñun mooy euh, bu ñu sañoon maanaam ñu am foo xamante ne bii dañ fay mën a def au moins dañ dañ fay mën a def au moins maanaam donte sax benn cantine la wala benn seng la. li bagages yi ni ñuy def ba am ko mooy dañuy dem dakaar ñu demee Dakar dugg ci pak yi. fu ñu gis lu am yaakaar ne am na war nañ cee mën am dara ñu jënd ko ñëw posé waat ko fii buñ ko posé waatee fii di xaar client yi client bu ñëw ñu jaay la noonu mooy moom la liggéey bi du doxal. waaw yombu yomb na yombut waaw parce que xaalis mooy tax nga mën ko def waaw ndax lu mu bon bon bon bon da ngay fekk nit ña fañ koy récupérer ba teg kon xam nga loolu yombut. koy récupérer dañuy yaakaar ne maanaam yaa nga cee am lépp su ko defee da ngay dem waxaale ak ñoom. jënd ko pare di la defaat transport indi ko du ci bénéfice des lu nekk da nga ciy jàngoonte ak moom waaye yow mi ut te amoo pexe da xool li nga xam ne nii moom ngay am yaakaar nga ne ca waaw jafe-jafe bi ñu ci mooy benn léeg-léeg day ñëw nga jaay ko bagaas mu dem tuuti ñëwaat ne la lii nga ma jaay baaxul loolu bokk na ci jafe-jafe bi nga xam ne dañ koy dund ci njaay mi waaw loolu bokk na ci jafe-jafe bi nga xamante ne parfois dañ koy dund ci njaay bi maanaam chaque jour ku fi lal dagg juuti juuti bi mu ngi nekk 200 150 bu dee ñaari ticket yi lañ la jox ma benn ticket bi 200 la bu dee da ngaa da ngaa am ñaari ticket 150 kii lay nekk 300 lay nekk maanaam jàpp léegi li ñuy jëkk jooy mooy terrain boo xam ne nii ñun ñoo ko moom moomal suñ bopp loolu la ñuy ñaan autorité yi waaw bu dee am na lu ñuy jooy mooy maanaam autorité yi li leen di ñaan mooy ñu dimbale ñu ci terrain boo xamante ne dañ fay mën a def place boo xam ne nii ku ci nekk da ngay am sa place normal moom la ñuy jooy waaw mooy li nga xamante ne bii ñu ngi koy jooy toujours nag waaw ndax ay at foo koy def te foo defar ba mu baax keneen ñëw jël ko loolu neexut te mën naa ne am na ci place yoo xam ne ñun ñoo fa jëkk defar ko ba mu normal keneen ñëw jël ko ñu defaat ko ah ba fii ñu nekkit neneen mbedd la kon xam nga yàgg-yàgg dañ fiy jógee léegi nag kon li ñuy ñaan autorité yi mooy ñu defal ñu terrain boo xamante ne bi ku ci nekk war nga faa mën a def sa place normal loolu mooy suñu besoin yi bi nga xam ne moo décisif waaw daa koy jërëjëf